auzubillahi min sheytaan rajim bisimillahi rahmaan warahmatullahi wabarakatuh mbokki internet Baol meja, ñu ngi di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di len wax ne ñu ngi fii ci euh, tal tal Nak suñ ko waxee ñu ci bari sen xel dina dem ci position géographique bi euh, li nga xamni mom mo nek tay ci diggu Sénégal mën nañ na fa lañ taxaw ni di addu euh, nek juste précisément ci fi nga xamne tay fa lañ wara amalé ziaré mam babakar Ndaw mam babakar Ndaw nag nekk Euh, nekkoon kilifa gu mag a mag euh, goo xam ne liggéey na ci tund wi lu baree bari liggéey ko ci lislaam euh, incha allah bu ko defee ñu ñëw fii tey waajal li nga xam ne mooy xew-xew bi di ziar annuel bi ku nekk war a jógee fu nekk ñëw fii incha allah ziar si góor gi di ñaanal ñëpp ñëw ci jàmm ziar si jàmm waaye yóbbaale yiwu baree baree bari ak jàmm ju bari fa ñu bàyyeekoon ñu dellu fa ci jàmm حقك وبحق جودك وكرمك وفضلك وإحسانك يا قدم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا صادق الوحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السالمين اللهم يسر لي الحلال من هندك وكرمك وجودك واجعله من نصيب اللهم أجب دعوتي بحق سورة واقعتي وبحق اسم الحسين الأحسن أن تهب دعوتي بحرمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين وسلم تسليما وبحق فخج محمد فتاه فتاه القاضي جامع جواد مهتي خير راسكين مغني بائس فقير تواب لا يعاكس بالجرائم اللهم اللهم يا ربي يسر لي برزق حلال من عندك واجمح بيني وبينه واجعله من نصيب ويسر لي الحلال يا ذا الجلال والكرام في هذه ساعتي يا سلام يا منهم يا يسر لي رزقي عندك يا ذا الجلال والإكرام يا كافي اكفني برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله يا بر يا كافي يا قني يا فتاه يا رساخ يا وهاب يا كريم يا مهتي يا جواد يا واسع يا سلفد الأسيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا هيدا لأولنا وآخرنا وآيات منك وارزقنا وأنت خير الراسخين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين رب لا تسلني فردا وانت خير الوارثين رب لا تسلني فردا وانت خير الوارثين رب لا تسلني فردا وانت خير الوارثين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الخلاص الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الخلاص الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بحرمة أجيب بحرمة جبريل وميكائيل وأسرافيل وأسرائيل ورضوان ورضوان ومالك ورقيب وحكيد ومنكر ونكير عليهم الصلاة والسلام وبحرمة قال بلا قال بابلا أروى بلا أروى بابلا سدد بلا سدد بابلا بحرمة سدد بلا سدد بابلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك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 وبجعل قاتم لما سبق يختم لنا بالقاتمة ناجينا راجينا ألسنا كلا لهم قل يا عبادي أصرفوا على أنفسهم لا تهنأتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وبجاه ناصر الحق بالحق انصرنا من أعداء الذين كلهم أتتخذون حسنا أعوذ بالله من الجاهلين وبجاه الهادي إلى صراط مستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تدعنا في هذه ساعة صنبا إلى قبرته ولا حما إلى فرجته ولا دينا إلى قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلى قضيته اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووحدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وحدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا سيد ساداتي جئتك طالبا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 وعلى آله وأصحابه قر الميامين نحييكم بتهية الأهل جانوهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبك جلدين يملين نيو دلن زيارة ينان سنبر سبحانه وتعالى سن زيارة بيالا دفنكو زيادة بيائي سيد الوجود عليه الصلاة والسلام dilen ndokel dilen tatagal di am mbekté ak contentement trop si ziyara bi ñi defal suñu mam babakar sadiq ndaw di ñaan su borom bi subhanahu wa taala képp ku fi ñëw rek aajo boo mën a am yàlla yàlla fajal la ko si shahir ak si baatin di jaay Seydina Mohamed alayhi salaatu wa salaam di am mbégte lool ak contentement si mbokki jullit ñëpp euh, comme ni ko euh, mbokk yi waxee rek fii moom dafa nekk béréb boo xam ne béréb bu barkeel la nit ku fi tëdd tamit di góor yàlla goo xam ne góor yàlla gu yéeme la kon yàlla yàlla defal.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 wala ra'al fita wala qabilahu la wala illa huwa wala qasim walau wala ma tadkhul wala ma anna wala masdukum ya wala anna ma wala ya wa illa wala ilaka allahumma salli ala sayyidina wala id fatima wala khalqa sabana wala qabil aqwal hadi ila siratal wala daqaqat subhanallah ربك لا استعمى سبحانه يا ya سم يا يا ya يا يا لهار الله يا كل حق المبدي حق الياغر يا الله منكو منكو يتوي دي وين دي بركه صلى الله عليه وسلم بانا ويا القران ngir xéewal ko góor gi yàlla yeesal yërmandeem ak njëggalam fa tabaarakallaahu fee ca Mbuur nga xam ne turandoo boobu di fala toog muy Serigne Mbaye bu Cerno Yaaya Ndaw bu Serigne Basiru Ndaw bu Babacar Sadiq Ndaw radiyallaahu taala anhu moom itam kasaalika noonu ak mboolem gox yi nga xam ne ci Sénégal def ci fii ci dëkk bi kenn ku ne yaa yàlla yokk góor gi leeram ak barke bi ñuy ñëw fa tabaarakallaahu li muy sens ci ay kaamil toll na ci turu yàlla ñu yéene muy baro ñaar téeméeri kaamil ak ñaar jàng nañ ko indaale ko fekk fi masaala wa li turu yàlla ñu wax baro mooy ñaar téeméer ak ñaar daf ca am ñett loolu jàng nañ ko ci ay kaamil indaale ko fa tabaarakallaahu euh, sayfi ñu ngi ci liggéey lim bu teg daanaka liggéey nañ ci ñetti téeméeri sayf yi ak juróom benn fukki sayf yi ak juróom benn loolu lañ ko defee ci xisbul nux nii loolu lañ ko defee ci xisbul bahri quarante et un yaasin kasaalika quarante et un yaakat kasaalika ñu jàngal xarnu bi lépp lu ñu ñaan yàlla ko ci kenn kàttanam la mu mu firal ñu ko ci kenn dooleem la mu toll te tey ñii ak xéewalam mucc ak fajug xaajo yàlla sotti ko ci mbooleem njabootu Babacar sa jox ndaw ak mbooleem waa dëkk bi ak mbooleem waa Sénégal ak mbooleem àdduna bi képp kuy jullit yàlla ci sédd la tey njëggal ak yërmande അതുണ്ടായ വഴികളെ സംബന്ധിച്ച് ഫാറ്റാറു കർണാടകം ndax war nañ ci li ñu xam ci ay yoonu yoon yeneen ñi ci gëstu bi wax ko ñu ci xam ci ay yoonu yoon taarix nag moo demee noonu fa tabaarakallaahu la nga ca xam rek lay wax keneen mënu caa xam waaw la nga xam waaye la nga ca xam la sañ wax fa tabaarakallaahu li nga xam ne jëlee nañ ko ci ay mag ci nga xam ne euh, def nañ ci ay gëstu mu nekk loo xam ne euh, leer na ci suñu bopp incha allah sax nañ ci wax wax sax nañ ci wax tuuti ngir li ñu wax rek bëggalee ko ñi nga xam ne ñoo fi ñëw léppante nekkul njuumte ñu xam ne ñun ñoo matul doomu aadama mat ñu jéggal ñu ko lépp loo ci xam ne nag njub la ak mbaax ak tegu ci yoon ñu xam ne ndimbalal yàlla la kon loolu boobu ñuy wax Ababacar Saddex Ndaw radiallahu taala anhu moom moomu ku neex a waxtaanee la waaye ku jafe waxtaanee la ndax lii nag li ma nekk ci jamono dafa nëbb boppam ba dem njabootam it loolu la nampatal ci ñoom loolu nëbb boppam ba dem njaboot bi fi des cosaan it loolu la ñuy dund ba du neex a xam kon loolu waaye sala boo xam ne dafay topp njabootam loolu góoram yàlla bu mag boobu nag daanaa wax ne mu ngi jógee ci euh, ñaari waajur yu tedd ñaari waajur yu tedd waajur yu góoram ñu ngi ko tuddee Alpha Mouhamadou Daawa Ndaw al mujaahidoona fi sabilillahi ci Jallu Njaay fa la ñu ngi def xare waaye def na jihaar Samba Sadio ànd ak Seexu Amadou Ba moom waajuram yooyu euh, mooy waajuram yu góor ma nga des Jallu Njaay ca diggante ci nga ak waa xoox moo góoral ma boobu daan wax baraaba di rakk ci Seexu Amadou Ba ba des Samba Sadio ñoom ñaar ñu nekk ay doom ci say ko amee ba ba tëdd wura maat yi say ko amee tariixa bi ci Abdul Karim Diallo nekk Cheikh Omarou Fouti yi radiyallahu taala anhu Cheikh Omarou Fouti yi nag gannaaw bi dafa dem tayku fa la gisee mu amadou xaali mu jox ko ijaasa ëllaax lii may wax ñu jàng téere tariixa bi xam ne ñu waaye bu ñuy demee foofu fekk na Abdul Karim Diallo moo ko jox tariixa bi moom sooy ko amee ba ba nag moom ñu ngi fi Abdul Karim Diallo noonu la fa tabaarakallaa ñu ngi jógee ci Cheikh Maodo Fall bu Mauritanie Cheikh Maodo Fall jógee ko ci Cheikh Mouhamadou Hafiz mu sunu kii fële ñu wax info bi ci Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu moom itam mu jógee tarixa ci maamam rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko suñu maal bi waxee euh, bi jox du wut xaw na du wut nawel yaxasatan laa ma naama na ko maamam rasulillahi jox ne ko bay lépp loo mos a yor te xam man maay sa waajur yow yaay doom te lii ma jox waaw fa tabaarakallahu ci Babacar Ndaw bu fëgg Ndaw ba léegi ñoo ngi ci am ñaari question ñett yoo xam ni ba léegi daf ñu xaw a des leer xëy na nga nga mën cee leer su gëstu ci mag ñi wala feneen ñii fan la juddoo exactement beneen bi ndax moom mook ayu Mali ak Serigne Touba dañuy bokk jamono wala moo leen magoon wala ñun ñoo magoon loolu am nañ ci ah des nañ ci am ay leeral ba léegi. waaw alhamdulilah rabbil alamin li nga xam ne jar nañu ko ci ay mag.

ci góor gu naan Cerno li ak yeneen borom xam-xam yu nekkoon foofa ak say ko amee ba jël na foofa xam-xam gannaaw bi la soog a dellu si aat bu mu dellu si mu dellu si aatee fii ci euh, ndilliki jamono yooyu tombeeg xare xare Samba Sadio jot bi xare Samba Sadio jotee léegi Amadou Ngoone ak say ko Amadou Ba ñoo fa bokkoon nekk ak moom Alpha Mamadou Daaw bañu xare ba jeexee am na ñu ngeen daan dem cene ba Kajoor sañ ci foofa Alpha Ndaw dem Bambu babaka Ndaw booba ma nga ca maanaam njulli ki di jàng ci li ñu déggee ci ay mag ba mu jógee foofu fa tabaarakallaahu rakki Seeko Amadou Ba bu naan Baraba mu jógee wura maadi yu léegi ñu àndoon nag baayam jàndoon ak magam doon xeex jiyaar bëgg ne bu amee lu ci des mu ñëw àndoon ñoom ba mu mu jaar njuutu kokki bi ba pare dem fu ñuy wax cene ba kajoor fa la sëriñ mën dikke sekk doon yàlla nee na mujjoon foofa dem fa la dem fekk fa am na lu ngeen daal am na lu ngeen daal ne ko man jëm naa mag te xare ndax tubaab bi am na matériel yoo xam ñun yaratuñ ko waaye nag am na góor bu naan Alpha Mouhamadou Daawo ma nga bambug kooku day bu fekkee dem defa fa moom defe na tuuti ndaw te xam na yoonu xare daan na la sawar na ci xeex ci yoonu yàlla wala xas dem foofa fekk fa góor ga góor ga ne ko ah dina gis day mooy tubaab bi tax na xare bi yombatut léegi daal mu ne ko nag man damaa jógee wulamaa bi miraas sama bopp bëgg ànd ñu àndoon ak sama mag ñu def jaar dem naa ci Amari Ngoone Ndaag mu dànkal ma ci yow la ma ebal ne la yéen a àndoon ca Samba Sadio bañ jox leen fa ndigal nga ñëw toog fii moom la maatu fa dem léegi damaa bëgg yow ñu ànd dem mottali suñu mbir fële ca Jàmmi Njaay fa la àndee ak maam Alfa moomu dem Jàmmi Njaay moo tax euh, Amari Ngoone Ndaag ca la xam maam Alfa dem na dem euh, بنگل جان میں جائے دو دن میں چسی کے لئے آچھلے بھئی بیش کر بنان امیر ان میں انداز چلے بلے مطلے بلا دس میں جان میں جائے میں نے موکو آئے مطا آئی فت دن میں دن میں سام بس آگے بنگل جان میں جائے جان میں جائے بس فتح بارک اللہ کو کنے میر جن ابا بکر سب جہاں بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤسکر و لکچی مانا وزن مجیدین کنان شہن طب شہن طب میدر ابا بکر soxna moo tax ñu tuddee soxna fa tabaarakallaa muy ñaari sang yoo xam ne kii ku góor la la mu doon na leen ci wàllu maanaam diine doon na leen ci wàllu ngor doon leen ci wàllu sàmm doon leen ci wàllu wàcce boppam loolu yëpp jikkoom la woon fa tabaarakallaa góor boobu nag nekkoon na dëkk bi ñuy wax war euh, xoox amoon na fa tool ñuy wax tey ndaw ñi xam jolof te toog fi dëkk war xoox soo ñëwee ba war xoox nga mel ni ñu jëm ci njaaxaay boo doxee ay kilomètres tuuti xam naa bu fekkee mën na ñaari kilomètres fa lay toll foofu moo doon tay ba ndaw mag ñooñu daan ko fa bayal ay tool ba defoon na fa ay gati moom ci boppam man bi lay def gëstu far naa foofa ay xeer yoo xam ne ndaa yu toj la ba léegi maa ngi ko denc bi lay def gëstu ci jeexi ci góor gi fa tabaarakallaahu moom alpha moomu Euh, jur Babacar Babacar nekk fa booba ñu wax ne moog suñu ajumaal ñoo tolloo jamono dañuy juum ñu wax ne moog sa Ahmad Bamba ba tey ñoo tolloo jamono fekkante ñun tuuti waaye moo leen mag mag boo xam ne mag bu bëree bëri la waaw moo mag sa Ahmad Bamba moo mag mag mag Seydi Hadji Malick waaye nag ñoom bu ñu ñëwee ci jamono dañoo nekk sang yu baax yoo xam ne fekk nañ Babacar yi nëbb boppam di ko joxañ pour ñu ñu jariñu ci loolu moo waral ñu nekk li taarix yi naan ñoo bokk daara ñoo ñu déedéet loolu déggee ma ci ko ci mag mën naa xam ne ku déggee loolu moom moo leen faree woon mag ndax bi ñu jógee war koox booba maanaam kii nga xam ne euh, euh, kii ja Alaaji Daawuda Ja booba sëñ Xaaji Maalik yóbboobu ko Jolof boobu demagu Jolof fa tabaarakallaahu gannaaw gi la dem Jolof bi nga demee Jolof nag ñu ngi waa waa Jolof di métti mu li Babacar jógee foofu ñëw fii mu ne leen ne kuy ut yàlla dem leen ci njombaan yàlla cëral na ko loolu waral maanaam bokkoon ci ay taalibeem ci diggante xoge leende tur ndaje mbajeen ci ñëpp daanaka li ci ëpp bëri ñoo xam ba ne bàbbeeku leen benn ci alaaji Daawuda Ja fekk moom nekkoon seen la mm. lii ci ay mag ñu façon ci ko laa ko déggee ma ba léegi daa danaa ànd ak yow ci loolu ndax dégg naa ñu ne alaaji Daawuda Ja moom moo ko nu alaaji Malick loolu moom siiw na ci taarix léegi dafa am loo nekk li keroog ci rajo bi nga ne bi mu départ bi jëm Fuuta dëkk bu mu wàcce fa mu wàcce fa lañ forage ñaata dëkk la nga ne dëkk yooyu ñu jógee ci mag bi mu bettaalee kalkal di laxas ñu di wàcc fu ñuy wax gasaan gasaan fa ñu wàccoo yu gasaan mooy travaux gasaan fañ ko bënn tey ba ñu jógee gasaan mu nga dem fu ñuy wax ceel ceel ceel fa ñu wàccoo fa la travaux ba nekk bañ fa jógee ma nga dem fu ñuy wax wéli ngara wéli ngara wéli ngara googa fa la travaux ba nekk. ba mu fa jógee la dem nawre. nawre nawre kasaalika. Mm. ba mu fa jógee la def dendude. dendude waaw kasaalika. Mm. foofu la dugg biir Fuuta. Mm. ba muy dugg biir Fuuta nag. mu ngi toll ak weeru maaris. mars waaw. waaw mars ñu naan ko maaris. maaris mag ñi wax maaris. maaris mooy maaris. ci tuuti. àll bi. bu amee ndox dañ ne xar baax la. xar baax la loolu dëgg la. waaw na nag mu àndoon nag ci benn ci magi ndooneen yi. ak magi Koungheul yi ak yenn ci mag ci waa Kalkal yi. la àndoon nag benn dem foofu ngir siyaare ji. sooy ko amee baax. waaw bi mu demee foofu. ci ci yoon wi. ci la leen nar ci distance bu sori ci li ma déggee ci mag. distance bu sori boobu nag. ca lañ ko jàmbal nag bu ñu déplacé aat danañ daanu ci mag. mu ne leen ah suñu yàlla dimbalee ndey ñu àgg ci guy gële yàlla mën nañoo may ndox mm-hmm. yooyu bisimilah ñu dem ba ca guy ga mm-hmm. fekk mu taa mbaalaa mbaal mi nekk ak mbaal bi bu ca kaw mm-hmm. ñoom man ñoo ne dal di naan raxas seeni sang seeni fos bii seeni mbuus am na ne kenn ca mag ndax taarix boo xamul ne bëgg a tudd wax nga am nañ kenn ca mag ña walla ca xam ci déggee ci kenn ca mag ñooñu loolu moom balaa du sonal boppam day xaar ba ñu gontu mu ñëw bii ci géej gi soog a def man moom nag xaw ma turam loolu nag bu ñu defee loolu moom man loolu mu xaar ba ñu gontu mu ñëw fa ndox ma nekkoon fekk muy ab noor ab noor waaw parce que mars moom noor la ma ko gisut fa ndox mu ne man de suñu defal ci verset naa seet ne ko am ne ko ah dangaa defoon ne géej boobu dafa nekk daayima rëdd. géej boobu de. nekk fa daayima géej bi. xar baax la maanaam xar baax la. xar baax la donte góor bi ñu ngi wotoon wane benn xar baax. fa tabaarakallaahu foofu nag lañ laxas. dem siyaare bi siyaare booba. yooyu lii may wax nii. maa ngi ko déggee maa ngi ko njëkk a déggee ci sama bay mu nekk li ma ko. ñaata dolli. ak bi nga xamee ne jógee naa fii. suñu àll yi ñuy abal ma. may dem xoje. di jiite ca jumaa ji weeru koor la mm. ne ko alaaji baaba kumba toog wax mm. ci loolu Moussa Fati waaw beneen bi mm-hmm. Malick Samb mm-hmm. maanaam xarit na ci moo ndaw mm. bayam maa ngi naan ko boo dul waxat Samb nga dëkk xay buubu ku dëkk xay buubu xam nga ko moom mooy fa la déggee loolu waaw fa tabaaraka laaw am na sekkale faddin mm-hmm. faddin faddin li wax faddin boo xam ne bëri na ci kër gi ñu ko xam. lim ba dem du ma ko wax. waaw waaye ci fanweer ak naasi la lim ba waaye ci fanweer ak naasi la. fajlu moom ci boppam bu fekkee faj ji nekk ba leen ñu dem. nga def ko. buñ fanaanee ci tund ak gaynde bu fekkee sa taalibe dem na. su fanaanee ci tund ak gaynde du leen lekk. maanaam doomu joxat kumba jooju hmm. buñ ko joxee fii muy jàng ci Babacar hmm. boobe àll bi doy na la daw dem hmm. ba am ay weer boo nga am résultat bi da nga dem toog weer soo ko jot leetar bu nga jotee leetar mu ne ko ah faat wut de man ko tegaat bët ndax xam naa ne fu mu déparé ci tal tal ak fu mu ñëwee xay buubu doo leen dem leen ko ci moom soxla moom Babacar Sobé nga wax loolu. maanaam fajil na ko. fajil na ko. Mm-hmm. waaw fa tabaarakallaa loolu bokkoon na ci ay mayam mm-hmm. yoo xam ne daawul mm-hmm. euh, nangu sax ñu ko def. Ah, mosal nga di loolu rek. waaw fa tabaarakallaa waaw. loolu boo góobu. góob la boo xam ne li mu gënoon mooy jaamu yàlla. liggéey. fii ñu ko denc moom ah, lan la jàkka la wala. fii ko denc. li ma dégg ci ay mag jàkkam la woon jàkkam la woon boo xam ne ci min baram bu ñu faatee feeñ ko denc ñu ut ay bant samp ko mu ne mu nekk sangre fee ca kaw lene fa la xam ne ba njëkkoon a nekk ñenn ci ay doomam fa lañ tëdd ku mel ni Fatima Ndaw ku mel ni Safiyatu Ndaw ku mel ni ñooñu foofa lañ tëdd yeneen doomam ñu mujj faatu fekk denc nañ fii ku mel ni Habibatu Ndaw ku mel ni Rahmatullaahi Ndaw ku mel ni Sukkayatu Ndaw ku mel ni Basiru Ndaw ku mel ni Ndaw ku mel ni Cheikh Ndaw ñooñu fii ak benn sotam bu naan Babacar Kunji ah, ñu ngi fii ci biir xam euh, yi mm-hmm. ak sotam bu ñu naan Seynabu Ndaw mm-hmm. di doomu Basiru Ndaw moom moom góor boobu euh, fa tabaarakallaahu euh, dañuy wax ne maanaam mooy caati góor gi Ah, moom moom Baba moom moom moom Cheikh Ndaw Cheikh Ndaw sa papa yow waaw mm-hmm. dañuy wax ne mooy caatu jooju mm-hmm. ne la ñu man maay caat mm-hmm. waaye dañu xàmmeewut man du ma caat moom du caat ah moom am na ñaar ñu mag moom Cheikh Ndaw moom ak Mamadou Ndaw moom ak Maodo Ndaw man mag maam ak waaw gis naa sa famille Honorata waaw Honorata fa tabaarakallaahu loolu mooy mooy lu nekk loolu lu mm-hmm. caatu Babacar nag ci jigéen mm-hmm. Ah, mm-hmm. mooy Sukayatu Ndaw mu ne mu nekkoon mu yaayu Mbeen Top Mbeen Top ak Daawuda Top ak Daawuda Top waaw kooku mooy caatam ci jigéen ci li nga xam ne déggee nañ ko ci ay mag waaw xam nga taarix bu ñu wax ne nangam moo am am na dafa am dafa am am na ki taarix waaw ndax wax ñii wax ne yàlla lu nga fa lu nga njort xamee ko ci ay mag sañ nga koo nekk waaw loolu mooy taal ay mag da wax ne fa jaa xilaafun waaw faraji jullakut bu yemi mu ko wuutal ñëw dem nañ ci borom téere yi ngeen xool waaw mu ko dafa am ci sar waaw loolu mooy ci nekk fa tabarakallah boobu mm-hmm. boobu boobu yàlla boo xam ne mm-hmm. li nga war a royee ci moom mm-hmm. mooy toroxlu sa bopp jaamu xëy na ñëpp jàmm. bañ a rëy rëy. loolu dañ na. waaw lu mat na. loolu ci suñu boppam. ku ko ku ñu rey Babacar rey ko ci mhm. maanaam benn ay millions. Mhm. faale ko ko. Mhm. xooloo ko. képp kuy jàmm ko ci yàlla bëgg yàlla. soo ko yëgee soo ko ànd naa ci li ñu mag nettali waaw képp kuy yëgee kat. ngir ngir sa nag. ah ñoom farata ñoom loolu am na benn sëtam boo xam ne sax ah yàlla yankalal na ko mu def ci ay bayit ci ci góor gi ci góor gi mm-hmm. muy sëriñ Birahima Ibrahima Ndaw mm-hmm. di doom ci Basiiru Ndaw mm-hmm. Basiiru Ndaw di doom ci euh, Basiiru Ndaw moomu di doom ci Biraan Ndaw Biraan Ndaw di doom ci Jibi Ndaw Jibi Ndaw boobu ba tey di doom ci Alpha Ndaw Ah, mu bokk ak Babacar Sadikh Ndaw mm. bay mm-hmm. fa tabaarakallaahu moom biraan moomu mm-hmm. nee na Babacar mm-hmm. kii sang la Babacar xamut lu bon Babacar xastawut ne fii du kër waaw ba tax na waajtaayam yëpp fële fa tabaarakallaahu loolu euh, ñu ko sante yàlla daal am na am na lu ma xaw a jaaxal tuuti man mas mas naa am ku tëju fii ci man ku di xabaru bi di def ñaan ci xa ci bi tëju fii ci biir def ñaan xabaru bi fermé wu ci moom yow mi yaa jógee Kaolack ñëw boo fi fekk ci biir ubbi ko waaw hmm. boobu noonu hmm. maanaam Souleymane Ndaw hmm. bu Ndaw bu Babacar Ndaw ak Seex Ndaw bu Sayxu Ndaw bu Babacar Sadex Ndaw Sayxu Ndaw maanaam Seex Ndaw dafa réer na am mbaam. am mbaam. won ko ba sonn. mënu koo gis. mu ñëw ci xabru bi. def tawoo suñu ñaan yàlla far coono bi jàpp ko mu ne tëdd bunt bi tëj. man ak Souleymane Ndaw mhm. ñu jógee Sadio. Mhm. ak ku ñuy wax Omar si doomu Alaaji Ali si. xam naa ñu ñëw ubbi bunt bi. bi nga ne bërëb ñu ñu def xaw a daw. wax mu daal jigéen ñi. fa tabaarakallaahu bañ ñu dee. lambaam moom a feeñ. am na yeneen nag yoo xam ne moom doo xaar doo ci dugg. dégg am na ne moom amul sañ-sañ pour wax. amul sañ-sañ waaw tabaarakalla. fa tabaarakalla moom muñ fi dajale moom muñ fi dajale moom. laaj ba xam a am tanta la nga wuti woon da nga siyaare ji woon ki nga siyaare woon mooy kan war nga mën a expliquer wax si moom dara ah ndax ñu xam ko ndax nit ki boo xamul doo mën a xeex xeex ci moom yàlla dafa wax ne yàlla dafa wax la ngeen maa jàmm sax xam leen ma taarifuni qabla an taabuduni wa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni kon nag boo defee ma koy laaj bëgg nit ñi yóbbaale la ñenn ñi ay question yu mu yóbbante la mu war ko koo laaj te comme gëstu bi si moom la ëppee doon te nekkul nag moo gën a am ittihaad ci wàllu gëstu bi il faut ñu laaj ko loolu la nga xam ne mais du leneen bismillah fa tabaarakallaahu li ma bëgg nekk li ñu loolu itam hmm. waa xoge ñu ngi fi hmm. xam ngeen kan naa ko fa xam fii sama bay nett hmm. ne ma alaaji Babacar nett yi ne ma ne ma bokk na ci mayi Babacar Sadikh mm. alaaji Babacar ku néewoon doole mm-hmm. mu digganteeg Babacar Sadikh ndaw muy turandoowam mm-hmm. mu ñaan loo ko yàlla ne ko fu la dugg naa fa mm-hmm. waaye daal xam-xam moo ma të mu ne dem na ba yàgg mu ne ko demal indi ñetti doomi guru waaw mu dem indi ñetti doomi guru mu téye guru ji ba mu yàgg mu ne demal bu soobee yàlla kii nii ci teraangaam ngay dee. moom moom moom Babacar Sa Diallo. waaw yaakaar naa képp ku dëkk Jolof. Hmm. maa xam nga Alaaji Babacar. Hmm. ca Mbadiène. Hmm. ba muy départ ba muy départ ci Pagne Guru. wala sax di ko mat ca la départ woon. waaye mujj na képp kuy jaay guru ci Jolof. camion bu ñëwee hmm. moo lay sédd ba ba muy ñëwee teraanga jooju ma nga fa moo leen sukk Babacar sa beex hmm. kenn ku fa dem ñu ci ëpp lekk nga teraanga moom ba moom Alaaji Babacar moom waaw hmm. magam Ibra Kaara kasaalika maanaam boo jógee euh, euh, mbajeen yaa ngi jëm juri juri yoon li nga xam ne moo jógee xoge géneen ah, moo nekk ci digg bi boo jógee maanaam mbajeen jëm géneen yoon li jógee xobe jëm ñu ngee mm-hmm. ab teelal fa mm-hmm. teel booba sama baay netti ni fa njëkk a duggee teen génn baat mm-hmm. booba mi ngi doon jàngee ci baayam ci ma ci nijaayam alaaji makaan ci jur moo magam ji Basiiru Ndaw foofa lañ wattoo alxuraan waaw waaw seen wattoo alxuraan siiw la waaw moom foofa lañ wattoo alxuraan góor gi Basiiru Ndaw dafa baroon na bar ba jéggi dawe waaw di mu mokkale alxuraan si li ma sama baay netti li am loolu jiwoon na mokkali bañ ko waxee bañ tokk tokk ci noppam la wal bëcc ku ut tey bind kaamil ba bindee kaamil ñu xam ne comme ku bind kaamil dootu loolu gis a mokkal fa tabaarakallaahu lii mën a wax nii ah. da ngay toog bay soog ci sama nopp waaw fa tabaarakallaahu loolu hmm. bu safante yàlla subhaanahu wa taala di jël ci yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di baax ndaxte tamit programme moom programme rek la tudd fii li indi ziyaare la ñaan te defe naa def nañ ko ba pare wante nag li ñu xam ci ndigal tamit jëfe ñu ngi njëkkee ci nuyoo bi Chérif Abdallah ñu ngi leen bu baax la jox sa wàccuwaay di la wax rek la ñu daan wax ñun de Sadio ku ñu mën a am yow mën a am yow ñu def dernier ziare bu baax di ziare tamit imaam yi ñi nga xam ne tey ñoo fi toogal l'islam bi di tax ma mën a toog ba di pratiquer suñu diine ji ñi nga xam ne ñoom ñu teg ci yoon yi nga xam ne tey ki waral lii tey ñooy ak njabootam di ko njëkkee ci xalifa sëriñ Babacar Ndaw nga xam ne nekku fi waaye am na koo xam ne tey moo fi toogal ñun moom la ñuy gis moom la ñuy jëflanteel lu bari ñu Serigne Aliou ñu ngi lay bu baax di la ziyaare di la ñaanal borom bi nga yàgg fi lool nag te yàgg a teewee yàgg a jiite njaboot gi ñu ngi ak sa rakk yii xam ne tey macha allah bu ñu waxee wax ji doy sëkk kon ñu ngi nuyu ñëpp gi nag. duñ ci wax lu bari ndaxte xëy na xam nañ ci tuuti li ñuy dégg ak loo xam ne tamit ñu ngi ko fi ñëw di ko fi sàkku si léegi rek tey ci suba am na benn kii bu ndaw boo xam ne il faut que ma wax ko ndaxte dafay loo xam ni lu rëy la eh, ku xam sëñ Mbàkke Fall rakk sëñ si am ndigal la tey dafa xëy ñëw kër ga ba mu ñëwee mu ne ma damaa bëgg dem ci ziyaare ba ma ne ko fan li ma ziyaare tal tal bi wol ma Abdou Mati damaa bëgg ñu yóbbu ma fa ndaxte nag bu ki tëdd foofu dañ na cee wax lu bari te man te mu ne xam nga nu mu ne la àdduna dafa mel ne ngay def examen def français def maanaam def rédaction bi ñu xam dem defaat mag bi defaat lu nekk fu ca nekk da nga faa bëgg moyen pour jàll léeg-léeg nga dem ci mag bi mag bi daaneel la ñu ne loolu mooy tax fu mu fekk kilifa foo xam ne. yaakaar nañu ne am nañ yaakaar ni wali wali moo fa tëdd dañ fay dem ziare ko kon tey moom a tax ma jóge Sam Fall ñëw uniquement pour ñëw ziare wax ma loo xam ne jërul ma di ko waxaat fii loolu nag daf ñuy dolliwaat courage ñun ñi nga xam ne am nañ chance su réussite tant que seen i ñaan ak seen i xol dëppoo wuñu li rek mooy wax bi ñu ngi leen di jégalu encore une fois di leen ziare waat allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma xool sëriñ mi Abdoulaye mi. ma xool sëriñ Abdoulaye mi. geesu wet gu ne. geesu wet gu ne. gisuma ko. gisuma ko. maa ne kon suñu jikkee bu kanam bi ñëw. maa bu jëlee ci kanam tuuti. ñu laaj addee ji. ñu laaj addee ji. su ko defee. su ko defee ñu xaajale ko. ñu xaajale ko. ki mu dëkk. ki mu dëkk moo gën a xëy. moo gën a xëy. ñu door a jox li ci des. ñu door a jox li ci des. ñu jëm ci yéen. ñu jëm ci yéen. ñu jox. ñu jox ko Abdoulaye bu lekk ceeb. par wax ngeen loolu. par wax nañ ko léegi ñu ngi ci loolu. kon alhamdulilah. kon ñu ngi sant yàlla bu baax. di gërëm gone yu baax. di gërëm xale yi bu baax a baax a baax. ma jiital ci Moussa Ndaw. mu jiital ci Moussa Ndaw. mooy mag tey. mooy mag ci xale yi tey. sooy bu tegee ci. sooy bu tegee ci. tabaarakalla. tabaarakalla. ñu farlu leen. ñu farlu leen. ñu am ak yëg leen. ñu am a yëg leen. ñu jox ma gëdd leen. ñu jox ma gëdd leen. kon sant naa leen. kon sant naa leen. gërëm naa leen. doxatuma ci. doxatuma ci waxatuma ci waxatuma ci te dara manki wu te dara manki wu mbaam yang yang xep yang yang te ñoom ñaar rek te ñoom ñaar rek ñoo ko doxal ñoo ko doxal kon daa leen gërëm kon daa leen gërëm sant leen sant yang yang leen yàlla yang yang yàlla buñ fakkastaw buñ yang te buñ yang seen bopp te buñ gis seen yang yang yàlla gis leen yàlla yàlla gis leen te jàppale leen te jàppale leen dañ njëkk jiital ñoom dañ njëkk jiital te te te te te te njaboot gi yëpp njaboot gi yëpp waaw yàlla yàlla jàppale xalifa baaxul xalifa ak ndigalam ak ndigalam ci laay yëngatu ci laay yëngatu loolu lépp nag loolu lépp laay nga fab ko fab ko jox leen ko jox leen ko yëngatootuma fenn yëngatootuma fenn dematuma fenn dematuma fenn lépp fii la ma fekk lépp la ma fekk wallaahi wallaahi wax rek laa ci wax laa ci de ñooy def lépp ñooy def lépp andil ma andil ma buy gàmmo bi. buy gàmmo bi ñoo koy def. ñoo koy def ku leen mën a jox. ku leen mën a jox muy réew yi. muy réew wala bitim réew. wala bitim réew. sadiqullah. sadiqullah. daañu wax ji gën a gudd. may wax gën a gudd. moo tax. moo tax. Euh, kii. kii. muy suñu taaw la. muy suñu taaw. ndax suñu taaw ko mag. ndax suñu taaw ko mag. Basiru mag. Basiru mag. moo mag sa ba mu wax te mu wax Sohaïb. Sohaïb eh, te Basiru. Basiru mooy sunu taaw. mooy sunu taaw. maa ko daal jàng. maa ko daal jàng. xam naa lépp. kon xam naa lépp. Eh, lii mu wax. lii mu wax. dama koy dundee ci Basiru. dama ko dundee ci Basiru. ba dundee ko ci Cheikh. dundee ko ci Cheikh. ba nga koy jeex. ba nga koy jeex. ñu dénk ma lii. ñu dénk ma lii. bu leen xool leen. bu leen xool leen. bu leen jeexoo. bu leen jeexoo. bu leen xeñ. bu leen xeñ. mais jàkk ci yàlla. mais jàkk ci yàlla. ku bëgg ñu jàkk ci yàlla. bëgg ñu jàkk ci yàlla. lu ko bëgg a fat. lu ko bëgg a fat. yàlla dama loxo ba. yàlla dama loxo ba. ci la nekkal. ci la nekk nag. du xam-xam. du xam-xam du mën-mën. du mën-mën du xam-xam. du xam-xam. waaye wéeru ci yàlla. waaye wéeru ci yàlla. wóolu ci yàlla. wóolu ci yàlla. di dimbali ko yàlla. dimbali ko yàlla. moom ci xam. moo waral lii tey. moo waral lii tey. ñu fekkoon ne. ci fekk. amiin. allahumma salli wa sallim ala sayyidina. amiin. amiin. amiin. amiin. amiin. amiin.